yàlla yokk leeram te taas ñu ci barke kon ñu jublu ci li nga xamee ni moom moo ñu fi dajale waaye balaa boobu ñuy nuyu di sant ñi nga xamee ni ñoo jógee Dakar ñenn ñi jógee Saint-Louis ñenn ñi nekk université Dakar ñu mën cee lim professeur Abdou mi nga xamee ni ku nekk dégg na euh, turam muy liggéeyee fi ñuy wax IFAN di gëstu lu bari ci lu jëm ci doxinu askan wi. Euh, ci domaine yu bari mu siiwit ci fu nekk ci àdduna bi ci xam-xamam ñuy rafetlu teewaayam ñu mën cee lim euh, professeur Lamine Ndiaye mi nga xamee ni moom mooy responsable école doctorale yi nekk université de Dakar yépp doon it ki nga xamee ni mooy chef département sociologie université Dakar ñu mën cee lim Babacar Fall mi nga xamee ni Fastef ah, euh, la nekk mën cee lim ah, Thierno ah, mi nga xamee ni tamit UCAD la nekk ak euh, professeur Farsar Sow mi nga xamee ni ku ne xam na taxawaayam ci réew mi waaye xamit taxawaayam ci kër gi ndax ay at a ngi ñuy ànd di fi ñëw ku nekk xam na teraanga ji nga xame ni moom la séq ak soxna soxna Bally kon ñuy rafetlu ñoom ñëpp li ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw wuy si Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé ci bis bi ñu ngi gërëm aussi ñi nga xamee ni ñoom ñoo bokk ci yeneen kuréelu euh, diine euh, yi nga xamee ni ñoo nekk ñoo séq lislaam bi ñi nga xamee ni ñooy ahlu chia chérif mbaalo mi ngi fi di leen teewal am na fi aussi ay représentants yeneen tarixa yi ñuy ñaan yàlla lépp loo xamee ni jublu nañ ko ah bëgg ko ci jëmmal jataay bi mbooloo islaamu Sénégal yang defal ñu kon li nga mui ni moom mooy thème bis bi mooy système éducatif bu Sénégal maanaam muy yar gi ak njàngale gi ci réew mi bi ñëpp jàppee ne dafa toll ci tagga témbe toll ci ay jafe ku gis xale yi bu ñu jàngee ba noppi seen yar lu bari dana ca des wala it la feesal seen bopp néew na lool njàngaleen mag yi réew mi ñu gisit ne ku ci jàng ba noppi sur ñàkk liggéey bari na ci ñu gisit ni nga xamee ni noonu la ci grève yi bari grève u yi grève u yi ak ñépp ñi nga xame ni séq nañ li nga xamee ni mooy njàng mi ci réew mi ginnaaw bu ñu amee seetlu boobu ñu samp laaj daal di laaj ndax li nga xamee ni mooy njàngum diine mënul doon loo xam ni day yokk taxawaayam ci réew mi ginnaaw ba mu fi saxee def fi ay téeméeri téeméeri at ñu xalaat ndax yokk yokk gi nga xamee ni war na ko yokk naka la ci réew mi war a taxawee waaye ñu xalaat ne crise boobu ñu tudd nga xam ni da mooy feebar bi dal njàngale mi ci réew mi yëpp ndax njàngalem diine mi mënu koo sauver ndax mënu koo wàllu ndax mënu koo defaraat te boobu nag li tax ñu tëral ko mooy dañoo gis ne at yi ñu génn réew mi. Euh, xool na ba xam ne njàng mi tàggate mbé ki nga xamee ni mooy président de la république décidé 2013 ne day dajale mbé mbooleem ku séq jàng mi ci réew mi ak yar ngir ñu càmbar jàngat bu baax a baax lan moo baax ci njàng mi lan moo ci baaxul ak nan la ñuy def bu tënkaat njàng mu bees moo xam ni dina mën a am jeexital ci ñi dëkke réew mi jee amit jeexital ci li nga xamee ni moom mooy avenir u réew ba ñu ba ñu defee daje boobu ñu tuddee ko assise nationale de l' éducation et la formation ñu def ci ay recommandation yu am solo ñenn ñi fi toog bokkoon nañ ci ñi yilifoon yooyu daje amit ñoo xamee ni participer nañ ci lu bari ba ndaje ma sottee la nga xamee ni moom la ndaje ma génne mu doon loo xamee ni boobu ba léegi xaj na jëfe gi ah, des na ci ni nga xamee ni noonu lañu ñu waroon a takkoo def ko ba muy nuru ne xaj na dañ koy bëgg a fàtte fàtte conclusion yañ ci fa tegoon fàtte tëraleen yi nga xamee ni moom lañu fa digle woon ñu ne nag kon xaj na war nañoo mën ci daje bu mel nii ah indiwaat xalaat ya génne woon ca daje boobu indiwaat ci ay jàngat yu bees ngir mu amal njariñ réew mi waxtaan wi nag ñi nga xamee nii ñoom lañ ci invité ngir ñu def ñaari conférence yi nga xamee ni moom mooy conférence principale yi mooy docteur Bakary Samb docteur Bakary Samb li nga xamé ni mom moy spécialité moy relations internationales, mi ngi un doctorat ci université Lyon 2 mu nek France en 2003 donc am fukki at ak juróom léegi am li nga ni wax master

mi nga xamee ni docteur Bakary conseiller principal ci fondation bi nga fondation européenne pour la démocratie wala 2009 ba 2011 nekkoon na ko enseignant chercheur qui ci euh, fi centre d'études des religions muy benn euh, bërëb ca université Saint-Louis buy jàngale religion yi diine euh, donc depuis 2012 faut la nek di 2016 mu li nga fondation euh, Timbuktu Institute Timbuktu Institute ni ngi commencé ci euh, institut la euh, ci mbirum Sénégal ak ci Afrique ah, te it di jublu lépp luy jàmmal suñu réew yi lépp lu fiy saxal jàmm bëri na nag ay livres yoo xamee ni moom publié na ko yaakaar naa ni buñ ko fi doon nekk di ko lim xaj na dina dinañ fi yàgg waaye mën nañ cee lim islam et démocratie islam et diplomatie mu defoon ko kon 2011 ak beneen livre boo xamee ni mi ngi Boko Boko Haram problème nigérien » boobu 2015 yaakaar naa dina a dellu si ci li nga xamee ni moom mooy yeneen téere yi nga xamee ni keneen conférence Lo inspecteur de l'éducation nekk département bu Thiès ginnaaw bi mu jàngee alxuraanul karim jàng na fii ci Touba ci majalis yi ginnaaw loolu mu dem école bi nga xamee ni mooy Manaarul Huda bu luga mi ngi jàngee aussi étude universitaire am fële ca Makkatal fa la amee maîtrise professeur de lycée la comme ni ma ko waxee inspecteur la dem na aussi ba am master am fee ci UCAD euh, actuellement doctorant la tamit UCAD maanaam muy jëmmal arabisant yi nga xamee ni dañuy jàng ci arab ba matal li ñuy jàng daal di dem jàng français aussi ba matal ba dem doctorat mu commencé bari ci réew mi ñoo xamee ni ñaari jàng yëpp dañuy dem jàngandoo ngir yokk seen xam-xam kon ñu door waxtaan wi mbokk yi ginnaaw nuyoo yi nga xam ni Serigne Cheikh Gueye jotale na ko fi xanaa duñ ci teg lu ay kàddu ay sant sant ngir euh, dalal gi ñu dalal ci dëkk bu tedd bi di dëkku xam-xam dëkku leer su dëkku suñu maam euh, mu tedd ma Cheikh Ahmad Bamba am ci mbégte kër gi ci ëtt bi ci di ci feddale suñu kóllëre ak Cheikh Abdou Lahad yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi di nuyu collègues yi ak universitaires yi ñi nga xam ne ñooy suñu mag ci daara ji ñun ñooy seen daanaka ñoom ñoo ñu teew ci université di leen euh, sargal di leen nuyu bu baax di nuyu suñu mbokk magi yi daara yi ñu fekk fii ci euh, euh, ak maa ngi seen léegi seen Cheikhna Ahmed Bamba Sall nga xam ni bi ma demee Jordanie ci ñi ma dalaloon ci la bokk bi ci jukki ñi nga xam ni ñoom lañu fekk ñëpp xam naa lu ko matee waaye euh, ñu ngi jënglu ci kàddu yi bu dëngee ak nuyoo suñu nuyoo ñu koy teg ci bi Cheikh jiitaloon léegi ci borom dëkk bi ak ñi nga xam ni ñëw ko fi teewal yaakaar naa ne pour waxtaan ci mbiru crise éducative bi xew ak nan la ci daara ak njàngalem daara mën a indee saafara pour def ko du ñàkk nag ñu tàmbalee ci indi lan la daara indi ba pare ndax mbir mënoo ni mën na nekk solution ci ab problème te mbir moomu càmbaroo ko muy mbiru daara daara fii ci Sénégal buñ ko waxee xëy na médias yi buñ ci wax léegi liñ ciy jàpp rek mooy mbirum yalwaan wi taalibe yi ndongo yi waaye dafa bakk ci la nga xam ni li sos suñu histoire ci la bokk dafa am benn historien buñ naan euh, euh, Kado Mosto yaakaar na nga xamni ni na fi ci réewum Sénégal ci atum diggante 1455 ba 1457 di wër Sénégal pour gëna xam réew mi bi mu démé moom portugais la bokk na ci rapport yu mu bind mooy fekk na ci fu bari ci Sénégal ay daara sosu fi kon daara yi moo fi jitu l'école yi bañ nañ ko sax ba l'école bi ñu l'école française boo demee ci roman bu ñaan bu Cheikh euh, Amidou Kane da ko naan l'école nouvelle daara ñu bees kon daara ñu bees ci fekkoon na fi beneen daara loolu mu nekk première remarque muy euh, teccale ren njàng moom ci diine ci la sosoo te bu ñu xoolee li nga xam ni mooy daara yi ak madaaris yi fi nekkoon ga am na ci réew mi mais am na ci yeneen réew yu mu amoon lu demee ni Maroc lu demee ni Tunisie Algérie ak yeneen réew yoo xam ni ndongo bi nga xam moo fa doon jàng mooy taalib ñaa ngi ko taalibe ñun da jàng à partir de cinq ans wala loo xam ni yées na ko di jàng alquran di jàng l'islam di jàng lépp loo xam te aju na ci xam-xam yi diine ba li ci firndeel daara samp gu samp ci suñu réew ak ci suñu langue ak ci suñu civilisation mooy làkk yi nga xam ni moo nekk ci réew mi ñu koy làkk ci bañ koy bind ci arafu arab